yoo xam ne rek euh, Puma mi ngi continuer liggéey bi mu commencé depuis 2017 euh, xam nga dix régions frontalières la ñu am ak ay communes près de deux cent quarante euh, liggéey bi ñuy commencé dañ koy répartir ci zone frontalière at bu nekk gox bu nekk ak zone bu nekk dana jot une action du Puma ci année deux mille vingt deux bii ñu nga xam ne moom la ñuy def bilan Euh, def nañu la même chose mais am na accent bu particulier bu ñu def ci Bundu ak gajaga c'est les département de Bakel de Goudiri yoo xam ne ay zone la yoo xam ne yaa am na ay manquement yu bëri euh, donc de Bakel a Kéniéba ba Sadatou jëm Saxaraya cette année euh, le FUMA va encore davantage mettre l'action pour par rapport à en tout cas aux investissements en cours bàyyiwuñu nag yeneen régions yi ñoom tam ci la ñu bokk voilà waaw tey dañ daje woon pour évaluer li nga xamante ni def nañ ko ci 2022 2022 euh, Promoville euh, réaliser na ay infrastructures yu bari euh, budget bi ñu joxoon exécuté nañ ko à hauteur de 76 pour cent ci li ñuy évaluer tey. Euh, budget boobu ñu réaliser ci ay infrastructures yoo xamante ne nii euh, ci à partir programme xëyu ndaw ñi bi nga xam ne président de la République Macky Sall moo ko mettre en place mais également ñu permettre ñu terminer euh, travaux yi nga xamante ne nii fukki collectivité territoriale ak ñett lañ ko doon exécuter te Banque africaine de développement di ko financer ak État du Sénégal ñu présenter également budget bi nga xam ne dañ ko war a exécuter ci année 2023 bi donc ci budget boobu dañuy continuer activité yi ñu démarré woon yi nga xam ni am na yeneen bailleurs yu ko financé comme Banque islamique de développement euh, mais également 2023 di marqué par euh, démarrage yi nga xamante ne ñu ngi koy def ak Banque africaine de dévelop euh, Banque euh, arabe pour le développement économique en Afrique muy BADEA ñu war ci intervenir ci quatre nouvelles communes muy Kaffrine Fatick euh, Kédougou ak Oussouye waaw yi daje bi tey mooy ñu xool li nga xam ne nii mooy liggéey bi ñu door depuis deux mille vingt deux li nga xam ne jot nañ ko fi def ci euh, wàllu yoon li ñu naan piste rurale ci wàllu ndox ci wàllu courant ci wàllu jumtukaay jigéen ñi liggéey boobu ci laa ne biñ ko commencé deux mille quinze ba léegi dox nañ ci ay jéego yu am solo pour que milieu rural bi am ci yëlla bi nga xam ne ni moom lañ bëgg loolu la ñuy nar a continuer incha allah ci 2023 bi ba nga xam ne nii partenaires yi ñu ci àndal mooy banque africaine de développement banque islamique de développement fonds saoudien développement ñu mën a vraiment euh, euh, jàppale suñu mbokk yi nga xam ne ñoo dëkk ci gox goxaat yi ci biir réew mi ngir seen dem ak dikk gën a yemb seen jot ci ndox gën a yomb am courant aussi gën a yomb damay fàttali ne depuis 2015 ba léegi liñ mot a liñ liñ liñ jot a euh, mobiliser ci ay koppar toll na daanaka ci ñeenti téeméeri milliards loolu yëpp jëm ci monde rural bi pour que ña fay dëkk ña fay dund ña fay yeewoo bis bu ne seen dund mën a yemb ba nga xam ne ni li nga xam ne bëgg nañ ko ci koomu réew mi ñu mën ko am. waaw donc euh, ñun ñooy kuréel gi nga xam ne ñoo ëmb ñetti programme yi ñoom ñooy euh, ñooy ëmb ñetti programme yi donc bii mooy juróom-ñeenteelu euh, ndaje bi ñuy def pour xayma liñ jot def début programme yi ba léegi ak pour l' année bii di année deux mille vingt deux xool tamit li nga xam ne moom la ñu <coughs> état bi jox ci ay koppar. naka lañ koy jëfandikoo pour l'année bii di ñëw pour gën a mun a am impact pour mu ni nga xam ne sénégalais yi nga xam ne ñoo ko gën a soxla gën a néew doole gox goxaan yi nga xam ne ñoo gën a néew doole ñu yóbbu ko foofu parce que équité boo ko déggee comme ni koy defee fii moom mooy jox lu ëpp ñi nga xam ne ñoo gën a néewle donc loolu mooy euh, euh, sababu euh, daje bi